yàlla moo baaxee doomu aadama tey c' est l' entente qui nettoie la surface terrestre c'est la plante qui nettoie à ce moment-ci à travers absorption du mouche def di muuc poison bi nekk si kaw asamaan si di sànni oxygène loolu tax na au temps de Senghor mois de mai juin juillet moo doon weeru taw suuf si fees dal ak ndox rien garab garde du ko muuc parce que am nañ banque d'eau si biir suuf le mois de août moo doon weeru witt bu doon xiin paa yi dañ doon toog nii sama kanam ñuy ñaan yàlla ma ne yaay lan moo de ñaan yàlla ni mu dañuy bañ mu taw parce que heure la mais tey mois de septembre lay taw nit ñaa wax ne euh, nawet la man wal ma si affaire environnement ne bu Sénégal waa dikk sama numéro téléphone mi 78 123 19 ñëw leen ngeen jàpp 19 heures waa dikk ma ne yow ban nit nga wax donc lañ def ñun moo yee askan bi moo gën ñuy joxe ay information ne kii def na lii wala kële def na lële parce que loolu moo am solo parce que dëkk bi tey nit ñi sonn nañu da ngay am jabar sa jabar du la mën a respecte man dinaa toog juróomi fan sama jabar du ko jox dépense parce que jigéen dépense yoro ko suñu papa yi caay lañ doon sol di gàbb yore néegu ñax ak baraak bu ñu duggee seen biir kër seen jabar gàttalu leen ak ndox raxas seen loxo jox la añ amuloon woon bindaan sa jabar mënoo doon toggal da la defal lépp ah di di xëcc si sikkim bi di raay sa bopp bi tey nga am pagero yore kër bu climatisé ah yore xaalis bu bëri sa jabar du la xool dégg nga patron bu takk mbindaanam ba ay dara wax ko si euh, wax sa xalaat mi ne am na benn patron bu takk euh, mbindaanam mi ne mbindaan bi moo koy toppatoo donc commerçant bi nekk marché Grand Yoff six mois jabaram di ko wekk si ngaam ba ngaam yi néewi mu dem bay waaja a dee ah, ndax jabar ji di ko wekk si ngaam man maa ko facc dama ko ne jëlal ñaambi bu tooy mu ne ma lu tax nga may wax ma jël ñaame bu tooy dem naa si ay docteur fay leen xaalis dem naa si sëriñ jox ko 500000 francs ma ne ko comme def nga loolu te fajuwul paa yi ñoo ne góor bu demee ba tële da ngay njaaloo est-ce que du loo ma tax sa jabar di la wekk léegi man dama lay yee jëlal ñaame bu tooy dafa am ferñeent si biir boo xam ne yàlla moo ko def jël ko sa jabar bu la wekkee nga dem si presse bi nga weer ma parce que xam nan ma mu jël ko une semaine dama ko ne 15 jours mais une semaine la ko jël jabaram na ko chéri mi ne ko naam mu ne ko gën naa la wekk de mi ne ko lan la mi ne ko temps yi tu es devenu El Hadji Ousseynou Diouf attaquant de pointe meloon ba may takk noonu nga melaat ah mu ne kon yow yàq nga sama xaalis mu ne ko non ba mu lay wekk boobu temps dama la jéppi woon pour man da nga am yeneen jigéen yi ngay nekkal parce que tu es devenu défenseur tu n'es tu n'es plus attaquant tey loolu moo tax si yu bëri tey tas lan moo ko waral mooy ferñeent moo amul suñu yaram oto gasoil moo koy dawloo wala euh, essence ñun suñu yaram tey la ko war a dawloo mooy ferñeent comme ni nga ko waxee sànq yalla moñu ñu baaxee à travers les légumes et les fruits buñ ko lekkee ci yaram am ferñeent nga añ ba paré dessert wu lekk pomme sa yaram am na ferñeent donc lolu moñu manké tay légumes ñu ñu lekk tay yépp ay poson ñoo si nekk kuma ma à travers site bi nga xamé né moy Sénégal TV demal marché nga jël légumes tangal ndox bay ba ndox bu ndugg nga duggal légumes ci bi la surface de l'eau est huileuse day gal poson bu nekkoon ci biir kon boog loolu moo nekk jàngat boo xam ne dañ ci yee askan bi ndax Sénégal TV leneen indi ko fi lu dul yee askanu waa Sénégal.